asalaamaaleykum mbokk yi euh, ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu la seen euh, doomu ndey Male Fofana ñoo ñëwaat diñ ko baaxoo di def ànd ci ak euh, Jotna TV ci seen jotaay wi nga xam ne ñu ñu ngi ko tuddee kàllaami penc mi kàllaami penc mi nekk ci biiru ungu waxtaan bu ngeen xoolee jotaay bi weesu ñëwoon nañ ci cosaanu maas yi kàllaame wolof wala làkki wolof tey dañuy ñëw ci riiraale yi bu ngeen xoolee dañu ne woon maas yi moom ni ñu koy sosee mooy rek euh, ngelaw li nekk sa dënn ngay génnee sa sa gémmiñ te boo koy génnee euh, sa nga sa gémmiñ ñu ngi koy tijjee euh, sa làmmiñ ñu ngi koy def sa tuñ ak sa bakkan ci ci ci noonu ngay gindee gindee ngelaw li ngir ngir mën a sos ay maas yu mel ni ay a o i u ak e ak yu mel ni ñoom jotoon nañoo jotoon nañ ko laytaay rek tënk ko tënk bu gaaw tey jii incha allah dañuy ñëw rek ci li ñuy woowee euh, rural yi rural yi mooy les consonnes consonnes yi maanaam lu mel ni të p në m bu ñuy wax ay rurale la ko wutale ak maas yi mooy gindi bi ngay gindi ngelaw liy gën a sa sa dënn gindi bi nga koy gindi mooy gën a dëgër mooy gën a tar maanaam day mel ni nga bëgg a wax nga bëgg a wax pë boo bëggee wax pë ngelaw li bu demee bay génn sa say tuñ da da koy tànc ba nga xam ne ngelaw li du génn soo paree nga bàyyi ci ngay amee pë ci ngay amee lu mel ni bë ci ngay amee lu mel ni kë wala xë yooyu yëpp gis nga ne ngelaw li dañ koo tëj dañ koo tànc soo ko bàyyi am na tam weneen xeetu gindi ngelaw woo xam ne ah, gaa doo doo tànc ngelaw li ba du génn da nga koy bàyyi benn da nga koy bàyyi ndool boo xam ne mën na si jaar day mel ni nga ne f wala z wala s boo xoolee loolu mën nañ ko xëcc muy dem ndaxte rek ngelaw li tànkuloo ko ba mu sës da ko bàyyil prof ndool ci bëñ yi wala ci gémmiñ gi mu fay génn boobu mooy ñaareelu xeetu gindi bi ñuy gindi ngelaw li bu ñuy sos ah, rurale yi am na tam foo xam ne danga nga ciy boole sa sa put da nga ciy boole sa put sa put dafay riir ànd ak moom loolu mooy wutale p ak b ki na ah, papa wala ki naan bunt bi p ak b p boo koy xool ah, booy booy wax p sa sa sa put du ci bokk waaye booy wax b sa put da ciy bokk loolu moo wutale s ak z nit ki boo ne boo tegee sa sa loxo sa put di gis ne amul dara luy luy riir sa put waaye boo bu fekkee ne da ngay def boo tegee sa loxo sa put di nga gis ne sa put dafay riir kon loolu tam euh, put gi ci boole muy riir loolu tam dina indi dina euh, may ay ay kàllaama yu mel ni wolof ak ak yeneen ñu ñu mën a sos yeneen xeetu riiraale euh, am na tam beneen xeetu jumtukaay woo xam ne wolof da koy jëfandikoo mooy di bakkanal rural yi bakkanal bakkanal mooy fi booy sos euh, xaraf bi ngelaw day génnaale ci sa bakkan euh, maanaam su ma waxee bay ak mbay ne kii mi ngi bay tool bi walla ñu ne mbay mi am na barke xam nga bë ak mbë dë ak ndë maanaam euh, jaay ak njaay su ma bëggee sos riraale yooyu faw rek ngelaw génn sama bakkan bu ngelaw gënu sama bakkan du mën a sotti kon loolu gis nañ ni yooyu yëpp ay ay ay xeetu jumtukaay la yoo xam ne yàlla def na ci nit ci gémmiñam mën na koo jëfandiku ngir mën a rek ngir mën a sos ay xaraf yu bari ngir rek mën ko jëfandikoo ci kàllaam tubaab boo ne ko njaay danaan en njaay parce que moom ci kàllaamam amul amul nu nu muy boolee euh, riiraale ak bakkan kon ngeen gis ne kaalaama gu nekk rek am na foo xam ne foofu la mëne am na foofu foo xam ne tam dafaa néew doole léegi ñu ñëw ci ay ay ay misaal ñëw ci ay misaal won leen dañu jël yenn màndarga rek dañu jël lépp ci ay misaal yoo xam ne ci ci wolof ci ni muy sose ay ay riralem wolof daf ko am te mu nekk ay ay màndargay wolof wolof am na cë ci nag moom moo nekk ci par exemple moo nekk ci ceeb moo nekk ci caam wolof euh, tubaab amul ca arab tam amu ko waaye anglais am na ko ca ca boo xool dañuy da ngay boole fat ngelaw li ak bàyyit ngelaw li porox ndool kii gis nga të ngay jiital të boo nee të da fat boo nee che da nga bàyyi ñaar yooyu ngay boole wolof itam am na euh, baatu euh, riiraale bi ñuy woowee jë ñëwee kam jaam jaam wala wala jiin wala wala jë wala jooy wolof am na ko loolu tubaab amu ko lu dul mujjal dë boole ko ak i waaye anglais boo fa demee dina ko am portugais ak espagnol itam di nga fa gis donc kon loolu beneen mandarga la woo xam ne dafa nekk ci wolof wolof am na tam euh, wenn euh, riiraale boo xam ne dañ ko dañ ko bakkanal bu ñuy woowee ñë ñë boobu moom boo demee ci tubaab di nga ko fekk ñë boo demee ci tubaab di ko fekk am na beneen boo xam ne euh, wolof am na ko mooy ñë ñë moo moo gën a sori ci ci ci gémmiñ gi ci gannaaw la nekk ñë ñë boobu tubaab amu ko waaye anglais am na ko mooy li ngay woowe maanaam euh, king wala parking wolof moom am na ko maanaam nga naan ŋaam wala ñiiño loolu ñë la nga xam ne wolof da ko am wala tam am na tam lu ñuy woowee xë ak que daanaka benn la waaye q moo gën a sori te kë boo koy def sa sa sa sa put du du du euh, du riir q boo koy def sa put day riir q dinañ ko fekk ci ak arab loolu mooy mooy wutale nit ñi bu ñuy jàng alxuraan ñu naan kuul ak xuul yooyu nag bokkul ndax boo ne kuul mooy lekkal boo xuul mooy waxal bu defee Euh, ñu góorgóorlu ci ci yooyu moom mën na ci am euh, njëriñ lu am am solo bu jógee ci ci x euh, ñu ñëw ci lu ñu woowee x x moom boo ko xoolee x sa da ngay xaw a mel ni lu xaw a tànc sa sa sa put boo ko xawee tànc da ngay bàyyi ngelaw da nga ciy bàyyi tuuti porox ndool ngelaw li di génn loolu na naan x gis nañ ko dinañ koy fekk ci arab dinañ koy fekk ci itam ci espagnol ci portugais waaye anglais amu ko français tam amu ko am tam yoo xam ne wolof amu ko wolof am ko yu mel nii v moo tax euh, boo wolof ko xam ne euh, euh, yàggul ci tubaab boo ne ko boo ko vu danaan wi donc wolof tam amul u boo defee donc v bi mu xool ban ban riiraale moo ko gën a jege ci wolof muy wë nga ne v mu wë u tam u tam néew na ay kalam yu ko am wala déew na kàlla bi ko am wala am am u boo ko joxee u da lay jël bi gën a jege u muy u mu boole ko bu ko defee nit ki danaan du wax fukki vu danaan fukki wii donc yooyu yëpp am na te li ma waxoon rek moom mooy ñëwaat ne kàllaama loolu loo xam ne dañ koy seetlu bu dee sa kàllaama amu ko mën naa jafe nga nga nga mën koo nga mën koo def loolu xam naa dinañ ñëw ci benn jotaay gën ko leeral yooyu nu muy dem wala fi tam amul wolof boo waxee ze se la lay wax boo ko waxee itam je itam ze la lay wax wala mu wax la se beneen bi nga xam ne tam mën nañ ko tudd ci ci wolof mooy mooy h wolof amul h wolof yi tam benn la ci am waaye boo xoolee kalaamal arab moom ñett la ci am kalaamal arab am na h bi nga xam ne day génn sa sa dënn sa sa sa sa put di riir am na tam h day da ngay xoj sa put waaye sa waaye put bi du riir maanaam waaye itam am naa ah dangay xoj sa put waaye itam euh, dafay da nga koy riir donc muy h ak haa ah. donc yooyu yëpp arab am na ko waaye wolof amu ko nga gis ne kàllaama ku ci nekk dafa am yoo xam ne da ko am am yu am yu mu amul bu ñuy wéy ci loolu ba léegi wolof am na lu ñuy woowee euh, loo xam ne ñu ñu koy wowee shidda shidda mooy da ngay dëgg sa tànk ci ci ci benn riiraale day mel ne ñu ne xaal xaal bu ñuy lekk ñu ne xal bi nga xam ne dafay làkke ñu ne wala ñu ne xàll na yoon wi xàll xàll na xam nga fii ci la bi dañ dañ cee def li ñu dañ cee dëgg tànk mu gën a tar nga gis ne wolof kon foofu rek euh, mën na ci sos ñetti baat ngay mel ni ñu ne taqale maanaam na ngay boole ak taqale xë bi dama fa dama fa dama ko gën a dëgg moo moo tax nga ma am ci ñaari baat taqale mooy te boo xoolee ñaari baat dañoo wuute taqale mooy boole tàqale mooy mooy mooy mooy mooy dañoo wute yooyu yëpp am na te nekkul ci wolof kese euh, kàllaama bu ko dem yooyu dina am baat yu niru boo ba ñëwee rek ci arab buñ naan euh, buñ naan euh, tali bi autoroute bi ñu naan ko ila Touba boo ne ila Touba mooy day jëm Touba boo ne illa Touba mooy dafay jëm fépp ba mu des Touba loolu mu nekkoon li nga xam ne bëggoon nañ koo andi ci cosaanu riiraale làkki wolof xam naa buñ ci buñ ci jógee incha allah beneen yoon bi dina ñëw ci euh, ci ci li ñu woowee cosaanu baati wolof maanaam ma maas yi ak rural yi boo leen boolee ngay ngay am lu ñuy waree baat bu ko defee bu ñëwee rek euh, dégg nga ànd ci suñu kéemtalaay xam-xam te niñ koy waxee rek yéen ñi nga xam ne yéen ñuy déglu ku ci am loo xam ne ba nga ko cee yokk wala ba nga ko cee jubbanti rek euh, boo ñu ko baaxee dinañ la sant bu baax asalaamaaleykum